waawoon na si nga xam ne mooy Sidaat nekkoon foofu euh, mun naa wax ni GFM wala sax i rajo mu gënoon def benn dénonciation wala peut xalaat xalaatam. bi nga xam ne nii euh, wala ngaa bëgg a yóbbu Sidaat i rajo. sax eh, sama fa la waay dem nag. fa lay waaj a dem nag fa lay waaj a dem de. <laughs> Eh, bul bi mën naa tourner à tout moment. mën naa tourner à tout moment motul fa la jëm alors euh, Binette. Mbagnick c'est-à-dire gannaaw boo problème yu amee c'est la première fois mu daal di euh, maanaam wax ci problème boobule am na ay révélation yoo xamante ni def na ko na dem déglu ci daal di ñëwaat ci plateau bi gën ko faram fàccee. parce que dégg nañu ay buzz RTS on sait pas si c'est ko mën a parce ma la ci laaj. bon sama xarit la. Euh, moi j'ai beaucoup de respect pour mon directeur. Mm-hmm. j'ai beaucoup de mm-hmm. a travaillé plus de vingt quatre ans. dara musul ñaaw. quand on parle de wax sa xalaat. c'est de parler de ton opinion. Mm-hmm. mais il faut il faut nu dindi contexte yi bokkul. Mm-hmm. Sidath qui est chez lui c'est différent ak Sidath qui est à la radio. Mm-hmm. lui mon directeur. c'est dans l'entreprise. mais dans le studio c'est un présentateur. donc moi je ne communiquais pas directement avec mon directeur. tu parlais de qui? je parlais de l'animateur le présentateur de la, de, de l'émission wax sa xalaat waaw parce que écoute ku ne xanaa am nga euh, esprit euh, de liberté waaw ku ne am nga tamit esprit d'ouverture war a mën a partager mm -hmm. on est dans le Sénégal mm -hmm. moi je n'ai rien euh, contre lui ou bien ma bëgg ko non non non c'est pas ça mais ba ngay wax xalaatoo ne lii mën na indi couac. c'était spon c'était spontané en fait. c'était spontané d'accord. on dit les choses. t'as pas j'étais dans ma voiture. Ouais. mais moi je suis à l'actualité tout le temps. Mm-hmm. c'était spontané. Mm-hmm. c'est sorti comme ça. oui comme ça parce que tu sais euh, nous on est des on est des communicateurs. Mm-hmm. on travaille dans la com am na yoo xamante ne que. Mm-hmm. day am donc nga joxe sa avis. Mm-hmm. jeex na y a y a rien. Euh, comme ni moom la mën a toogee. la lu la neex wala lu la neexul. mais pour man euh, on doit être démocrate man dañu war a happy quoi parce que. Mm-hmm. pour man débat loolu moo koy neexal. Mm-hmm. ça pas dire que dañ fa a nekk di raayante di mm-hmm. naxante tout le temps xam nga war a waxante dëgg ni ma ma alors moo ngi noonu dégg ngeen euh, kàddu yi nga xam ne si daat leeral na ko même fekkee sax euh, am na yeneen parti yi nga xam ne am solo ti wax na ni nga si biir plateau bi parce que gannaaw bu mu génnee maanaam dal xaw a sax dal si kaw kii Assane jàpp ne ni fu mu toll nii dafa commencé sax changer xar kanam que loolu yëpp alors c'est la première fois mu daal di siy wax alors euh, Nana na nga déggee jàngat bi nga xam ne nii si daat

animateur boo xam ne def na ci RFM fexe na ba marqué empreinte am comme mhm. j'ai toujours l'habitude de le dire euh, ñoom ñi dañoo war di leen bàyyi xel parce que nag euh, bay nañ seen waar ci métier anima animation bi ba ñenn ci xale yi sama genre gi daal di koy bëgg donc mhm. euh, ñu ngi koy soutenir bu baax a baax a baax quant kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko dañ ko koy nangul c'est son point de vue euh, kenn ku ci nekk am nga droit wax ni man lii laa gis te nii laa koy waxee fii laa koy waxee loolu c'est personnel loolu décision personnel la et moom moo ko jëlal boppam mais man selon man sama sama point de vue comme moom ni mu ko waxee euh, waxul woon ak ki nga xamante ni moom mooy ak El Hadji Assane en tant que directeur mais daf doon wax ak moom en tant que présentateur bu émission wax sa xalaat mais man euh, fi may fi may waxee rek euh, ñu déglu ma ak xel mooy que ni ginnaaw ba émission wax sa xalaat la te yaa ngi ko doon seetaan bien vrai que wax na ni c'est spontané maanaam dafa pare rek yëg ko daal di koy wax donc nekk lu mu préparé nekkul dara daf ko yëg rek wax ko ci ci ci otoom la toog taal taal taal am def live donc man j'aurais préféré bu doon man ginnaaw ba émission ba fa la xewee ci biir rajo bi yor naa sama crédit je pas yor naa crédit ou pas ou pas ou pas quelque chose comme ça ma jël sama téléphone woote ci biir émission bi ci rajo bi. wax sama xalaat bu boobaa dinañ ma jàppee auditeur buy woote la mhm. mais pas Sidath Thioune en tant qu'animateur. Là, je suis totalement d'accord avec voilà donc euh, mais nag dañuy dañuy dañuy parce que des fois li nekk ci yow di la defloo maanaam ba nga ñàkk sa sago wax loo bëggul wax walla nga jàpp ni li nga wax xëy na yow yaa nekk ci dëgg xëy na doo ko xam. maanaam li nekk ci yow di la ko defloo doo ko xam des fois mer dina la jàpp des fois fougue dina la jàpp mais aussi des fois yàkkamtee wax dina la jàpp. Mm-hmm. donc euh, ginnaaw ba ñu ko soutenir ba pare ñun tamit dañuy wax suñu gis-gis bu doon ñun naka la ñu koy doxalee. Mm-hmm. vraiment ñu ngi koy soutenir encore une fois parce que nag. suspension bi ñu ko def parce que koo xam ne liggéey ngeen vingt quatre ans mm-hmm. loolu du du benn fan te du ñaari fan donc vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy soutenir bu baax di wax rek euh, Euh, directeur mu mu mu mu mu mu delloo si si daal parce que nag soxla nañ ko ci rajo bi quand même. d'accord alors euh, Ouz. comme mhm. ni ko euh, euh, Nana waxee euh, c'était spontané comme ni ko Sida Tine waxee tamit waaye tamit Nana tamit dafa jox benn li nga xam ne lu am importance maanaam woon na woote comme auditeur daal di wax xalaatam comme émission wax sa xalaat la mais le fait que mu daal di def vidéo si biir otoom partagé ko est-ce que jàppoon dafa am leen nga xam ni da ko dencaloon. ki nga xam ne nii mooy El Hadj Assane Gueye euh, même fekkee nee na moom waxuloo ak tànk directeur mais tànk personnel personnellement dafa mun ko déggoon moo tax mu daal di wax loolu. daati coon daati daati respect grand na yàlla sàmm na yàlla aar na yàlla dolli sutura na yàlla def tawféex ci sa jëmm defal ko it ña ngi ko sekkal ci barab ba ngay liggéeyal. ci seen jëmm ñaanal leen ko ñëpp. yaaram gis nañ fi Pape Sidi Fall. point de vue ci dëkk yi lu xewee teleem ñàkk xewee teleem bu xewee ci otom lay toog wax li mu war a wax posté. mais loolu du bokkul ak tey d' accord na. <laughs> loolu revue la. ba tey d' accord na ma gis nañu Pape Sidi <laughs> bu xëyee day def revue. Ah. de presse. waaw mais ça deful loolu. waaw loolu revue ku la ko maanaam yow yaa jàpp ne deful loolu. waaw mais Ousse deful waaye yow à voir nag Ousse deful loolu Ousmane nag n'a rien à voir nag. loolu moom doo la bàyyi nga jàll moom. foofu moom. n'a rien à voir dama lay jàpp comme ni ñu defee lido lido jàpp nii damay baaree dama lay baaree foofu doo jàll. lu ko bokkul nga def boo nee nga def une minute de silence on s'en fout tey li ngay wax laa lay wax mu bàyyi de kuy. ah waaw. tam di wax fii. nga bëgg jël exemple boo xam ne boo ko leen exemple dama lay dagg. tey saa yi ngeen paree rek ngeen jox barrage de jamaa laa indi teg tey. Ah, ah, jox ma. pare nañ kay yow instant yii la kon comme pare nga noppi. parce que waxaat nga. non mais du ma la bàyyi nga wax nga. non non da li ma bëggee su boo may weddi nga weddi ma. bàyyi ko bàyyi ko moom bàyyi ko dégg. ah bàyyi na kon nee naa ne dama bàyyi bàyyi naa. ma ne la Pape Sidi Fall. Hmm. nawleem la bu xëyee day xool li xew ci dëkk bi wax ko nam ko neexee ak la ko ca arrangé ak la ko ca arrangé ah. xam danga may déglu rek jarul a ak o ak body non non non da koy waxi comme ni mu xewee maanaam a body string si li ba ci yem jarul nga li ma bëgg a wax man dama koy wax ñu dem ba dagana Podor ñëwaat li ma bëgg a wax laay wax insha allah léegi vas la moom da koy waxee nam ko safee nam ko sentir décortiquer ko mhm. pour pourtant Pape Sidi Fall dina uteeg nit ñi des fois gis-gis ndax da ciy jëlee sax ay xas des fois nga déglu Sidaati clair et net émission bi nu mu tudd. wax sax xalaat wax sa xalaat. Hmm. am na ci droit wax xalaatam buñ ne wax sax xalaat lañuy def génne neen ci ñii bu ca waxee moo tooñ. mais waxoo ko si biir émission bi. déglu ma rek. ñun ñu ngi wax ay wax yoo xamante ni fii ci people di ko traité waxee wuñ ko ci émission bi. Ah, non waaw de de de de danga may. danga déglu dëgg waxee wuñ ko ci émission bi. ñeneen a koy wax comme lii nii mu wax. 2S la ko waxee. na leeral de. 2S TV la waxee li waxee wu ko fii te ñu ngi koy wax. waaw ah, parce que actualité. waaw waaw mu ngi noonu ko léegi actualité parce que léegi actualité rek. non actualité la rek. actualité tax ñuy actualité nii. li mu doon actualité ñoo tax ñu koy actualité nii. non non Ouz Ouz tey moom kenn oui oui oui non non Ouz Ouz Ouz oui oui moo moo moo tu veux être l'avocat <laughs> a vas-y waxewu ko fii te ñu ngi koy wax. ah mais c'est pas la même chose. Ah, c'est la même chose munoo ko utalee. waaw ah, léegi d'accord c'est la même chose da laa nekk nga koy utalee. Eh, munoo ko utalee. mu wax ba pare. ko utalee. pourquoi nga koy utalee munoo ko utalee mais moom am na droit wax li nekk ci xolam. waa am na droit wax li lim sentir. waaw am na droit wax li nga xamante ni moom la gëm am na droit wax li nga xamante ni moom la gis ànd nañ 24 ans. la wax. Mhm. boobu day wax wax yu ko neex ndax daati yàgg na def ay sorti fu ne ku xam daati cuun si daati. Mhm. def na sorti ak Boubacar Diallo daati ma ne ku xam daati. Mhm. waxuma la ay ay ay yii rek tax ma wax de ku xam daati toppal si daati. ñi dégg tur bi ma koy waxee xam ne li ma koy wax daati. yàgg naa def sorti fu ne yàgg a wax foofu yàgg a wax ay bal. xëy na da xëy na dafa musta jug ci yow. wala musoo cee gis sa bopp ba nga cee gisee si bopp wane nga sa jikko doomu aadama dangay ngay jéppale quel que alpha même boo jàppee ne dañ la tooñ koo àndal vingt quatre ans mm-hmm. vingt quatre ans yooyu yëpp moomu mm-hmm. defu la ci lu métti même bu dee bii dangaa gis ne dafa juum foog naa waroon na demee neneen lu dul ay dàq wala ay misaate wala yeneen ak yeneen mm-hmm. warutoon àgg fii maanaam li li kii wax mhm. dafa am lu ma ko ciy dolli dafa ni daati dafa juum d'accord mais ñoom it dañoo juum mooy bam mu juumee mhm. ba toog ci otoom mhm. nga ne lu logique nga wax de d'accord naa de lu logique munoon na woote ca émission ba wax waaye ba mu woote est jot na loolu pour mu noonu maanaam dafa am ay procédure moo tax. Ah, déedéet déedéet déedéet déedéet bàyyi ma rek ma développé non non non bàyyi ma rek ma développé. bàyyi waaw da nga may bàyyi na kon kon jarul. non non non non waaw ah, mais loolu waroo ko bàyyi xel. loolu waroo ko bàyyi xel yow waxal rek yow. da ngay déglu rek dama koy bàyyi xel kay parce que li may wax damay bëgg mu déglu dugg ci nopp nit ñi. ok yow daay déglu. ma ni la ku la woote na jotul. man fi ma njëkkee sa déggoo ko dama ne. waaw kenn xamul ndax am na crédit kenn xamul ndax am na crédit xam nga kon. dégg naa voilà moo tax ñee sentir nañu suspendre ko. léegi sentir nañu suspendre ko moo tax ñu baadoo la kon. non ok. waaw waaw d'accord ça bi waaw parce que ki la jëriñ ngay teew muy nice mm. di baax mm. di dox mm. benn njuumte bu dee da jàpp ni njuumte te man moom jàpp ma ni sax njuumte la ok maa jàppul ni njuumte la daf ko war a wax wax ko am envie wax ko am envie wax mu wax mu nag gis nga doomu aadama doo égoïste fii ragaluñ fi kenn taatam sànguñ fi kenn ay deram fii bu seddee dañ naan la guy bu tàngee ñu ne la jur bu xonkee ñu ne la cur bu ñu la ñu ne la kukk nit dañ lay wax dëgg. waaw léegi nooree ni. mënuñoo jiite te nit du leen wax dëgg. Mm-hmm. ñoom dañoo yor seen ëppuñ fi kenn xel. waaw maanaam seeni xalaat. Mm-hmm. di ko xalaat nit ñi tamit yor seeni xalaat di ko xalaat ëppuñ kenn xel gënuñ fee jàng kenn gënuñ fee xam nit kenn lu logique. Mm-hmm. te ñoom rek duñ fi ay njiit njiit yi bëri nañ fi. yaa naa a gogo ñun fii ñu nekk sax on a njiit premier eh. bu nu ray fii foo dem am na bopp am na geen am na ndigg am na càllawle nañ nekk ay nit bàyyi doomu aadama yii def nii ñoo ko tey mooy lu ma ëppale sa morom rek dama la koy won waa léegi léegi man damay rebondir fi nga waxee ay ba muy euh, Pape Sidi présentateur de la 2STV yi <laughs> mhm. moom bu toogee ci otoom di wax it li xew ci dëkk bi lay wax toogul di adressé directeur am Alaaji Njaay yow laay waxal nangam ak nangam non non non fekkee dafa am rek yow wax ma par contre Sidaat dafa génn def ci otoom. benn daa fekk Alaaji Njaay defut. waat waaw. daa fekk alaaji njaay defoon waaw bu alaaji njaay defoon mu def ko directeur am kii kii kii kii waaw waaw mu ngi noonu waaw mu ngi noonu kii daa def moo tax ñun mënuñu cee wax waaw mu noonu ñun mën naa cee wax dama ciy wax li tax wax la loolu li tax ma indi li tax ma indi loolu moo def may ma rek li tax ma indi loolu mooy bëgg comparer Pape Sidi ak Sidath Thioune alors que du lu ñu war a comparer. Mhm. c'est pas la même chose je suis désolée mais c'est pas la même chose. alors ah, foofu leer na. Sidath dafa génn wax ni El Hadj Assane Gueye sama directeur. Mhm. loolu la wax boo seetaanaatee vidéo bi. loolu la wax kay yaa ngi dégg. kon ce qui veut dire que moom mi ngi adressé la parole son directeur. parce que il est conscient de ça. parce que hmm. directeur ma ko wax. directeur ma ko wax moo tax moo ko. non non comme dafa juum nga nangu rek ne ah, carrément damaa juum. c'est ça alors alors. léegi d'accord d'accord. dafa war a wax euh, nit dëgg wax ko dëgg juumul. bu juumul woon bu toog naan naan c'est spontané waxuma woon. Eh, waxuma woon am na ñoo xamante ne naa fekk leen dañuy wax ni di wiiri wiiri naan waaw xam na bu baax li may wax donc il doit assumer sangam donc dafa assumer non ne ko yow laay waxal lii xew. non ah, assumer na li ko ci fekk non non assumer wu dafa tey lu dul yàlla dama wax waxuma en tant directeur. yàlla am na beneen dawal bu dul yàpp ay géej ak ah, voilà. yeneen en tout cas daal après sotem bi euh, polémique yi gën a bëri am na ñu ni euh, moom peut-être dafa bëgg dem RTS parce que euh, Pape Alé Niang xaytam la ak ak leneen ak leneen ak mu doon jàppale peut-être d'une part waa Pastef ñu jàpp ne peut-être porte de sortie la bëgg c'est juste que des questions ou bien ak ay rumeurs yi nga xam ne yoo ngi koy wax en tout cas lu si mën xew dañuy xool waaye daal comme nanaan ko doon waxee sànq ba léegi moo ngi biir TFM moom peut-être dañ ko dugal bi mais moom génnewul waxam moo ngi toog di